salaamaaleykum mbokk yéen ñi safoo seetaan clic Dakar 221 yaakaar naa tey nag jëm ji ñu jàkkaarloo muy soxna Aida la grande voyante maman du peuple yaakaar naa ku nekk xam na ko ci réew mi lépp loo xam ne réew mi am na ko muy jafe-jafe rek muy sarax ñu war a génn mi incha allah moo koy joxe saa su tey nag ñu jàkkaarloog moom ci beneen facette toujours mu ne génne leen sarax borom kër yi génne leen sarax njaboot gi nañ génne njaboot gi sarax waaye tey ñu gis ne dafa am loo xam ne ñaawte bu am fële ca grande euh, grande grand Yoff muy imam bi nga xam ne dañ ko dafa dee ñu sànni ko ci li nga xam ne mooy ci bassin bi tey ñu war a wax ci loolu tey ak soxna Aïda Saliou toujours rek mu wax blanc yi bëri na ci réew mi yaa Aïda Saliou ziar nañ la salaamaaleykum bu ñu sante yàlla julli ci yonent bi dañuy ñaanal suñu buntu ci Serigne Touba di ñaanal sama sang ba sëriñ Saaliw di ñaanal Cheikh Béthio Thioune di ñaanal àdduna képp nag tijaan xaadir laayeen bàyyiwuma kenn waaye di massawu askanu àdduna ndax métti metti bi fi xew démb ñëpp la metti ndax lan imaam imaam kenn ku ne xam na ne moo ñu dolli ci suñu diine moo ñu xëcc ci suñu yoonu yàlla dañu ci gën a mottali fajar ku jëm ci imaam ba nga jëm ci jumaa ja kon imaam bi bu nu ko defee imaam bi dem rek ci anam bu leer sax dafa metti loolu monument bu wàcc la waaye lu ko faat ñuy laam-laamee dañ ko ko faat wala dañ koo faat wala dañ koo rey walla nu mu mën a amee ci anam yi rek am na mbóoy goo xam ne amaana laxasu na ci toggal nag suñu ndogalu suñu borom dal ca waaye ginnaaw yàlla ñu ngi ñaan yàlla na ko yàlla leeral parce que ñaaw na bàyyi njaboot bàyyi soxna doon kilifa gox doon kilifa quartier waaye di doonu kilifa lislaam boo wàccee wàcc woo xam ni tiital nañu suñu xel dalatul ba tey li may wax ne Sénégal balaa yi bari na hmm. musiba yi bari na nañu saraxe ndax li yëpp ci ay xeeti balaa yu wàcc la ndax kat kuy tiim imaam war nga caa xalaat lu ne ba mu des tiim ko di ko faagaagal kuy jëfit luy koy naawtal wala nga xalaat ne tey bu ma ko defee lii mën naa kaa tàqaleeg addunaam war ngaa xalaat delloo sa bopp ci yàlla ndax amaana ak ku mu mënti doon rek kooku ñàkkul na benn bis mës na koo jiite jumaa wala mës na koo taxaw wala mës na koo taxaw fu nu koy denc wala fu nu koy tuddalee wala fu nu koy defal lu ne kon nanu soo te xam ne àdduna ñu ngi ci buntu boo xam ne tàqalikoo nañu ak sunuy sago tàqalikoo su sunuy xol sunuy bànneexu àdduna rek la ñuy topp ba def safaan kon maa ngi ñaan yal na ko yàlla nit waaye réew mi ànd naa ki balaa am hmm? ànd naa ki musiba ndax mbalaanum balaa moo sàngu ci réew mi hmm? maa ngi ñaan yal na ko yàlla laal li ci barke yonent yàlla Muhammad te ñu sàkku sarax yi bu kenn xeeb sa doole hmm. nanu saraxe nanu saraxe soxna Aida Saliou nag saa yu gisee ci réew mi fu dooleem yam dina ko ci def bu taxee mu jaay otoom dana ko jaay bu jaree mu jaay ay mooyam dina ko jaay ba réew mi am jàmm lu mu jaral fitna bi dugg lu mu ko jaral pour yàq réew mi man jaral na ma lu ko pire pour jàmm ngi woo Sénégalais yépp di wax ne te ku ne xool sa bopp ci mbir mi te xam ne mbir mi laal na bàyyiwul kenn mhm. bàyyiwul xarit ak xarit mhm. bàyyiwul jëkkër ak jabar mhm. bàyyiwul doom ak yaay bàyyiwul nit ak nitam bàyyiwul sénégalais ak sénégalais bàyyiwul askan ak askan te dafa law nag fii ba diaspora diaspora bi nee naa leen nañ fa dégg ay musiba ay tàq-tàq ay hmm? bari mais yàlla nañ yàlla muccal muccal suñu njaboot ga fa nekk ndax man maay maman international maman di peuple international kon bugguma dara dal sénégalais mhm. fu waay mën a nekk mhm. muy sénégal mhm. muy diaspora sarax leen ndax tàq-tàq fitna balaa ustuwaar waxante ay kilifa ñu daawul war a jote jote ñu daawul war a séqante ay kàddu séqante ay kàddu sëy yi jafe-jafe yi bari na géej mbambalaan la accident yi ñëw yeneen ak yeneen réew mi dafa làmboo mbalaanum balaa. Hmm? yàlla na ko suñu borom laa. mais maman euh, dafa làmboo mbalaanum balaa mais est-ce que kilifa ñu ngi dégg kilifa nga xam ñoo réew mi tey ku mel ni président Macky Sall dégg sa message war a génn sarax parce que réew mi bëri na balaa comme li nga wax rey bëri na lu nekk barina na. est-ce que du xam nga Sénégal hmm. dafa am autorité yu baax. Mhm. bari ki démb la première bi ma waxee sarax rek. Mhm. Euh, quarante cinq minutes laa ko wax. Mhm. dugal mais daanaka dañ ko sot parce que xam nañ ne man su may saraxe mhm. dama koy def en direct xaaruma kenn dama cay nekk ba ku ma mhm. ca fekk fekk ma ca mhm. ndax jàmmi réew mi mooy sama jàmm te man nee naa leen kan daaka Sénégal la am jàmm am naa jàmm mais dama la bëgg a xamal ne la fi réew mi toll président Macky mën na am jot mën na ñàkk jot parce que xelam fi mu nekk yëpp dafa bari xam benn nit benn njiit sa xel war a tasaare ci àdduna sépp ñu lay soxla ci fu nga war a dem fu ne sa xel du daj lépp ñun dañ koy comprendre ñun sénégalais yi li dal li dal Macky moo dal Ousmane Sonko moo dal keneen moo dal keneen waaye ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci seeni côté te réew mi jàmmam mooy suñu jàmm te gaal gi bu dee déeg ñun duñu ci mucc ñun ñëpp a ci ànd bu jàmm ji amee ñoo koy bokk. Mhm. kër goo dugg day am feet day am mbégte mhm. waaye bu musiba ñëwee kër goo dem da ngay fekk ñëpp si ngéem kon na ñëpp génne sarax yi waral mbir bi daal. Mhm. amul xàjj amul amul xàjj ñëw tuuti ci imaam bi imam bi gis nañu dañ koo euh, da xamuñu dañ ko faat xamuñu moo faat boppam ñu fekk ci biir ndox mais ñu dégg ci euh, démb ñu ne en fait dañ doon xëccoo li nga xam ne mooy njiit yi moo keneen dañoo xëccoo kii naan maa jiite kii naan maa jiite ñu am ci xëccoo gang bi farfee gang bi farfee tey mu nekk loo xam ne doy na waar ci Sénégal. est nañu bàyyi di wax diw soo ma mooy tubulee wala boo bàyyiwul lii wala boo jàppul lii mm-hmm. di nga tëkku nit mu tombeek ndogalu yàlla waaye doo ca set mm-hmm. mbir mi lu mu mënti am naa la xamal lenn mm-hmm. mbaa xam nga ni ñun Sénégal ñu nekk ma lu nu ñàkk waaye du justice bu rafet hmm? xaw ma lu nu ñàkk waaye du du du du du rebilté euh, lu ci mënti am balaa heure bi suba wala heure bi tey ca ngoon résultat day feeñ fii hmm? ku xëy rey nit bakkan dafa foor bakkanu imaam imaam bi yàlla daan déy muy déy ñëpp. Mhm. imaam bi daan jaamu yàlla daan yor kaamilub yàlla bi eh njiit jërta xëccoo mhm. njiit looy xëccoo yàlla na fekk mu tombeek ndogali yàlla nekk ca mhm. xoolal lu jot yomb yaa ngay xëccoog nit dara di ko ca puus wala mu la cay puus amaana doo ca toog na sa toog yàlla tudd ko lu yàlla tudd ci ab jaamam day am nanu mooy tonte te ragalante yàlla waxoon naa ko sama vidéo yi ma passé may gën a ñaax rek di wax ne bu président amul jot Marème Faye Sall am na jot wala bi ku dégg lu baax. Mhm. jegeel ko kilifa gi mu mën koo dégg na xelam mënul nekk ci internet bi. Mhm. nekk fépp internet bi yuuxukaay la. Mhm. moo tax ñu fay dem ndax ñu toogee suñu kër yi amaana du nu li nu bëgg a wax du nu ko tasaare. pour mu génn ñu séddoo ko suñuy mbokk. internet bonul. bu wax ja sellee mhm. wax ja neex a dégg te bu jëg see jariñ sénégalais yi internet baax na mhm. internet li ko tax bon mooy lu ñaaw la fa nekk mhm. ak wax ju ñaaw ja ak yàkkante ba te amuñu jot bi nag wax dëgg yàlla ndax lu ñu wax tey bu subaa ñi ngi ñaan yàlla leneen ñëw doon jàmm wala lu ñu mën dara ñu nekk ca foofa gis nañ gis nañ euh, rey yi comme li wax rek rey yi bëri na faatante yi bëri na lu bon li bëri tàkk-tàkk yi bëri est-ce que du ñi nga xam ne tey ñoo di euh, sa sa sa euh, damay wax sa moroom yi exemple naan ay dañoo yor ay jinne dañoo yor ay affaire di def ay affaire ay xërëm ak yooyu est-ce que du ñooñu ñooy naawal xurutal jinne yi bañ dugg ci réew mi tas di faat ñi nga xam ne moo nit ñi di di di jël benn idali di ko xabtal pour mu rey benn benn sàmba est-ce que du loolu. idali ñun dañoo ñëw fekk fi jinne yi rab yi ku fi ñëw màgg. non mais temps yi di ngeen koy defee. xam nga lu ma la bëgg a xamal. Mhm. man du ma ne am naa ci nawle parce que man bi ma ñëwee maa ngi nuyu ñëpp nag au passage. ndax sama bopp laa mën a cité. mais ko xam nga dama laa xamal ne nit ki yow moom gisuñu nga yor ay xambu gisuñu nga yor dara macha allah nag ba fees waaye du lu may exposé ah? ndax la gëm la la ngay def ci réew mi ba nu gëm la du doon uh-huh. du doon looy signalé du doon uh-huh. looy wane du doon looy décor uh-huh. non non jinne dafa sensible dafa siis kenn du ko exposé te dafa soxor rab kenn du ko exposé dafa sensible nga ko romb mu ne tekk te keral ma ngaa rab di dox ak moom gis nga jinne yi seen place yi ay garab lañu woon dañ koo dagg ñu ngi ci tali bi tëdd mhm. ñu ngi fépp mhm. ñu ngi ci ruq yi mhm. ñu ngi fépp xolal i daani ragalante ci sunu biir dañu ragalante yàlla dañu xam ne ñun ñëpp ay jullit lañu te ci yàlla la ñuy dellu dañu xam ne réew mi ñoo ko bokk kenn ku ne boo yàqee boo ma pàqalee yaakaar ne maa ciy dëgg amaana man du ma ci dëgg beneen doomu jàmbur bu ayof bopp mën na caa dëgg mhm. waaw boo xoolee démb scooter ñetti nit la rey waaw mhm. ñetti ndaw moo tax kay affaire jaaxal ma oto bi di bi di naaw kon est-ce xam nga loolu est-ce tayif la mhm. de dama lay laaj li am bàngaas noonu tayif li am bàngaas di daw ndànk li amul benn bàngaas di daw di naaw yéeme na ñett da rey seen bopp yéeme na yaay xam nga di rey ba rey sa bopp xam ne ñu ngi ci jamono ju sensible mm-hmm. weer bee ma génn semaine bële waxoon naa leen ko ci ay vidéo mm-hmm. nee naa leen nañu ragalante yàlla bantu bale day rey sax mm-hmm. paaka mburu day rey bale yi nañ leen denc paaka yi nañ leen denc xol yi dañ ko rafetal ñu yéeneente jàmm amul paa amul meer amul gara amul xale bu góor nañu ragalante yàlla te yéeneente jàmm borom ndey ju liggéey boo ko yéenee yéene ko jàmm dafa am nga am ñaanu waajur te borom ay bopp yu oyof dafa am ñoo xam ne dara dara topp leen. Mhm. mën ngaa takk ndigg ba mu fees na takk juróomi kilo sangooy juróom-ñaar fukki litre te yow sa yaram dara nekku mhm. mhm. yi dégg ngeen sama yaay li mu wax muy soxna Aida Saliou tey naa dañu ñëwoon focus rek pour 10 minutes li nga xam ne mooy am ci réew mi euh, tey rawatina imam bi nga xam ne moom la rey fële ca euh, Grand Dakar euh, grand kii Grand Yoff allah. tey nag mbokk yi kon dañ leen di bàyyi rek incha allah ngeen euh, commentaire mu ngi noonu macha allah yaa soxna Aïda a saa su ne mu génne ay sarax saa su ne mu jox ay sarax di wax euh, di lancer message le président Macky Sall di la message ñi xam ne ñoo ko wër muy entourage am ñuy respecté sarax yi nga xam ne ku mel ni yaa soxna day génn chaque jour ay di ko wax ci internet bi ñu koy respecté parce que ñooñ tey ñooytuñu njiitu réew mi ñooñ tey ñooytuñu kilifa ñooytuñu lépp tey ci réew mi kon ngeen bàyyi xel bu baax a baax wax ju yaa soxna El Saliou yi nga xam ne moom lay dikkale saa ngeen koy génnee saa su moom nag comme li mu wax rek xaarul kenn euh, chaque jour dooleem li mu am ak lu mu amul mu ngi koy def ay sax saa yu pour réew mi am jàmm saa su kon yaakaar na ku mel ni soxna Saliou jafe na ci réew mi allah koo xam ne day jël dooleem di ko def ay sarax pa njabootam. mais ak ñëpp nag dafa am ñoo su ma nee sarax rek. ndeysaan ma yaay sarax bi lan mhm. mhm. allah am na solo trop kon ñu bàyyi leen rek mu ngi noonu numéro baa ñu taw bi képp koo xam ne soxla nga ko rek nga woote numéro bi macha allah jërë ngeen jëf.